jër jërë ngeen jëf mbokk Leewtoo TV comme niñ ko tàmm di defee chaque fois ñuy jël suñ micro ak suñu kamera di seetu acteur làmb yi tey nag ñuy dalal koo xam ne nii kenn dootu ko présenté ci làmb ji eh, tey ñu ngi dalal Thiat bu Boy Bambara Thiat maa lay nuyu. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah Assane maa ngi di ziare di nuyu di nuyu waa Leewtoo TV yëpp di jaajëfal ñëpp di baal ñëpp ak di baal ñëpp ak si weeru koor gi ñu dugg nii. Mhm. waaw di nuyu sama mbokku séeréer ñoo xooli séeréer mais sim naa noonu hurutan gonum fay simangol mi caato ɓini noon dohor nun on deɓ ɗum fof noon tenna ziyara on simna noon jajafarano alam nano mbiyu gueɗa num jaamo yaali fiyana en jaama fiyana en sutura o wasna noon hak to wasana noon hak on deɓ fof mak ɓe jajafara fof toon sallana fof sallana makɓe o yaali wasede imam ken defna sate fen sate fan en e ceerer we chef de quartier ke chef de village ke fof ɓen sallanaden o o yaali ceede no caatee sallanam heɗanam o yaali ceenum jam a fiyanamo woda fenum sutura par que eno sereer moom jam somi andu to e ane o got geɗana num jam koye jeɗa num sutura kadi mbuna o yaali fiyana num ino itam kay mbuna o yaali fiyane par ce que yakare o leng xa refena nuno to jiho leng xa refena nuno itam wen siyare anum to njajafala num simna num maak moƴan janga koyin doxna num no koyin no kanu mhm, yena fa kanu yeherna in doxnano on nga nuno in ndefanu meen o leŋ wuɗun nuno jërëjëfam yàlla jëfee non du question waaxu sax man moo xam ne instant <laughs> uh-huh. uh-huh. na rek ne mbamena ceena sikat quoi wen uh-huh. simnaano toon ziyaare no maag jaajëf dëgg la mm-hmm. ale Thiat ñu mm-hmm. nekk ci weeru koor mm-hmm. tey di ñuy dugg ci fukki fan yu mujj yi est-ce ba kañ ban année nga commencé war d'abord. man moom année bi ma commencé woon mënatuma ko mhm. ma ko jàpp exactement mais man moom. Mhm. koor moom dafa nekk loo xam ne ma ko parce que pas damay faat sama gars sax mais loolu moom sama habitude la quoi. Uh-huh. parce que dama koy wax loolu loolu dëgg nekkee booy ba léegi la ma topp parce damay tàmm di wax ne man fekk fekk xëdduma mënuma mhm. wóor parce que loolu moom tàmm ma ko ah, foog nga xëdd foog ma xëdd mais su ma xëddul moom wóor mënuma ko def mais su ma xëddee moom dinaa wóor mais moom eh. jour ba moom du ma ko wóor moom sincèrement parler waaw ah, mais yaa nga def yaa nga def wóor gàlle yaa <laughs> waaw def wóor gàlle moom moom yaa wóor gàlle yaa nga ko def nga ko daan defee non wóor gàlle yi nga daan defee comme maag sama copain rek yenn copain rek mhm. ama sama benn copain bu nekk mbuur bu ñu wax daraame mhm. dañ daan wóor ba ba naaj yu xaw a tàng ni bu ñu néeg rek bañ lekk bu neex bu ñu fa fekk rek <laughs> profité lekk ko génn quoi dëgg bàyyi mel ni ku wóoraat waa del delluwaat tefes ba toog mel ni ku wóor rey yaram bi. <laughs> dëgg la wu ñee ñoo gën a da ñoo gën a mun ndogu <laughs> noonu ñu bëri jaar ci wala mën naa ne ñëpp jaar nañ ci sax. Mm-hmm. boo nekkee booy ma faw nga def wor gàlle. Mm-hmm. donc ñu war a dugg ci waxtaan bi dinañ waxtaanee nag trois points eh, dina waxtaanee dese booy bambara bi nga xam ne ni moo la yar. Mm-hmm. ba nga si fii tey den dinañ waxtaanee également voyage bi nga defoon euh, Amérique États-Unis nga ñëw dimanche bi passé. waaye den wax également si sa combat ak Modou ja loolu mooy dernier sujet bi mais pour démarrer. Mhm. caat nga jóge fii voyage yi dem sa ginnaaw ñu tàgge la ba sa papa Boy Bambara Boy Bambara mhm. d'abord nan nga yëgee nouvelle boobu. waaw ginnaaw bu ñu ñëwaatee sant yàlla sant yonent bi. Mhm. di sant sama supporteur yëpp. di sant ak lu làmb di sant milieu làmb yëpp. waaw di ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñoo jiitu suñu ginnaaw yàlla xale leen àjjana. suuf sedd seen kaw. fi ñu jëm gën a leen fi ñu jóge. Ah, wax dëgg fa yàlla de moom booy bambara nekk na koo xam ne soriwul ku soriwul loo si man. Mhm. parce que fépp fu ñu waxee caar booy bambara rek. booy mhm. bambara tax ñu xam ma. te fi ma egsi fii yàlla booy bambara moo tax ñu ma egsi fii tey. Mhm. nan nouvelle bi ma yëgee nouvelle bi doon na lu ma tiis. nan ko yëgee ku la ko informé. waaw ki ma ko informé waa équipe bi la ñoo ma ko informé. Mhm. coach bi moo ma ko informé. ak mhm. sama grand frère bi nekk si kër gi ñooñu si staff bi lañ bokk. Mhm. ñoo ma ko informé parce que daa fekk ma jógee salle bi rek. coach bi envoyé message. léegi bu ma envoyé message ak beneen mbër bu ñuy wax Saloum doy envoyé message ma ne xaar ma taaxir lu tuuti quoi. ma gën a information parce que dañ ko fi njëkkoon def quoi. après ma laaj information leer sama grand frère bi envoyé mu doon loo xam ne lu ma man ni ma meloon ak paa mhm. dem man ak moom dañoo nekkoon complice. Mhm. lépp lu ma daan def suba ngoon dama siy dugg waxtaan ak moom. Mhm. sama voyage yi avant may dem rek dem naa ba si këram tàggu ma demal ak jàmm ñoo ak jàmm boo ñëwee di ma fi fekk. lan ngay mujj waxante. waaw li ñu rek la ñu mujj waxante. parce que man saa yu ma demee foofu ak ni mu feebar feebar feebar. dina fexe ba téye sama loxo yi ba yëngal ma. mun naa bu mus a ta a taxaw ak góor ba am leen looy xalaat. si wàllu bër ba am leen looy ragal. lan ngay lan ngay ma mhm. ko père bu soobee yàlla loolu du ma sa am mu ne mhm. man dama laa bëgg mhm. dama laa bëgg te yàlla tax ak Sëñ Babacar bi ñu bokk mu waatal man si yàlla ne moom dina tane ba dellusiwaat say activité man ak man loolu laa lay ñaanal nga tane ba dellusiwaat say activité mhm. même laata muy gaañu sax tànkam yi neew yoon yëpp mhm. moom la ma doomam bi wax tànk yëpp reesoon na mhm. boo muy commencé di wax mu ne daa na boobu mu ngi nax gars yi di tàggoo parce que ku ku feebar rek booy tàggoo rek dangay wér mais ñu ngi koy ñaanal fu mu jëm gannaaw mu jóge nekk na ko nekk na loo xam ne nag métti na ma trop le le fait que ma dem voyage sama ginnaaw mais suñu borom moo na doomu aadama lan ngay jàpp ci lan moo la gën a marqué ci moom. waaw paa bi man li ma gën a marqué si moom bari na. parce que boo xoolee boo xam man li ma gën a marqué si moom man ah, bu muy am tane. Mm-hmm. dañ daan di bëxëri fu ñu tase rek. Mm-hmm. balaa may def tuur tuur rek foog mu jéem a foog mu dugal ko mm-hmm. parce que dama ba ma nekk ba mu fiy doog a ñëw équipe bi noonu la ma doon entraîné. dañ jékki-jékki su ma woowee ma ñëw ba may ñëw rek balaa may excédé dugal loxo bi tal doon ma Mm-hmm. loxo bi dal ma après ma demee ba maîtriser saa yi ma woowee rek su ma ñëwee bu dóor a mbéj ma baare mm-hmm. mu a voilà mu ne yaa ngi commencé yaa yaa yaa ngi commencé miin mm-hmm. chaque instant noonu la mel loolu bokk na ma gën a marqué si moom ak saa yu ma amee combat su ma amee combat balaa may bëri ji def may woo këram ba pare veille combat bi daf may woo kër ga ma ñëw ñu waxtaan mu wax ma ay wax yu bari si làmb mu ne ma nag xam naa ne bër nga bër nga te bërëkat nga te foo taxaw ñu ne mbër na mais li ma lay ñaan mooy leen yooyu mm-hmm. eh, boo taxawee si géew yow li nga mun yow yóbbal yóbbul li nga mun mm-hmm. boo demee ba tële tële li nga mun mm-hmm. nga indi li ñu la jàngal waaw mu ne li ko jëlee sa karaw boobu ba sa weew tànk fépp fu ñu la laal lañ lañ war nga si a bëre man moo tax ma tàmm loolu caatu booy bambara fan la jógee tur bi waaw caatu booy bambara moom la jógee nan la ñëwee waaw ni mu ñëwee mooy parce que man bi ma nekkee booy di bëre dëkk ba di bëre mbapat caat laa doon wootewu mais caat rek lañ xamoon caat jonwaar lañ xamoon après bi ma ñëwee nekk si écurie bi di dem si ay mbapatam fii di bëre yàlla di ma di ma di ma suturaal may jël ay final foofu ay saaku ceeb ak ay suukar hmm. ma koy jël foofu dama daan jógee dëkk ba su ma déggee ma ñëw ngëm bu yàlla may ma ma jël ko yenn saa ma perdre final hmm. noonu la fa demee après ma demee ba toog ba xam ne ñëw ñëw Dakar jot na hmm. sama grand mi nekk fii zil ku ñuy wax zil stade a la bokk yóbbu ma si loxo paa bi teg ma si loxo paa bi d'accord Mm-hmm. si la caar booy bambara jóge gaa yi ma da dëppale caaru booy bambara mm, ba mu na ba mu nekkul lu ma jege dina jig na ma trop nag mm-hmm. mm-hmm. d' accord pa bi génn àdduna écrit bi des fi lan mooy sa taxawaay maintenant si si écrit bi waaye taxawaay mu sama écrit écrit mooy taxawaaru xel mu sell ak matiir nekk mag boo nekk koo xam ne da nekk si écrit bi li pa bi mébétoon ñu eggali ko maa samay grand frère ñoo fi nekk ñoom Tafa booy bambara ñoom Seydou Peck ñoom Grand Zil ñoom Perda ñoom Maas. Mm-hmm. ñoom Lyon ñoom Daouda ñoom ñëpp ñu ngi si écrit bi démb rek si guddi rek fii la nekk dañu nekkoon di réunion. Mm-hmm. mbër yi ak staff bi di réunion di kaf di foo di ree pour écrit bi jëm kanam. parce que paa bi am na lu bari lu mu si def te am na lu bari lu mu si baax moom moom li ma si war moom dinaa ko si du ma si xaar kenn. Mm-hmm. parce que lépp lu ma si def lu ñaaw xale yi nekk sama ginnaaw si man la ñuy xool li ñaaw loolu may def li ñu koy def. mais li ma war saa saa su ne. may def lu rafet ñu gis lu rafet may def ñu mën a topp samay tànk. bu ñu ñëwee ëllëg bu ñu fi nekkee tamit def lu rafet man moom lépp lu ma si xam ne si lu baax. Mhm. dinaa ko si si écrit bi. d'accord xaaruma si ñu woo ma si wala ñu ñàkk ma si woo parce que dama ko war a def. Mhm. nga nar a dem sa premier combat. Mhm. Euh, te paa bi du ko fekkee. loolu est du luur ci yow. waaw dina nekk loo xam ne dina métti sama mais. dañ koy sant yàlla parce que suñu borom rek lépp lu mu def laa gën parce que bëri paa bi toog di ma may bëre ma yóbbu stade sama dernier conseil moom la doon doon. Mhm. ba yàlla de mu tëdd feebar. Mhm. yeneen combat may bëre gisuma ko kër ga la daan dem. Mhm. balaa may ngëm damay dem kër ga mu conseil may may conseil ma dem bëri ji. bii nag dafa wuute dafa làqu suñu borom jël ko suñu borom tam lépp lu mu jël rek da ko moom. yàlla moom lépp lu mu jël da ko moom parce que yàlla lii moom moo ko yore boppam. muy warsak ak bakkan. ak. sutura dëgg la moo ko yor doomu adama mooy warsak bakkan ak sutura dëgg la loolu suñu borom moo ko yor mais dañ koy ñaanal yàlla fu mu tëdd rek si combat bi ñu jublu yàlla ñu si yàlla may ndam waaye ay ay yaxam mun a taali parce que loolu dafa loolu la bëggoon suñu bu mu am ndam mais maa ngi koy yàlla may ko xare ko ajjanaal amin ñu jógee ci sujet boobu dugg ci deuxième sujet bi moom mooy sa voyage bi Amérique ñu gis la mois de novembre passé su ma juumul ba mu nga fa demoon mm-hmm. lan nga wuti woon exactement Amérique yee Amérique bi ma fa demee mm-hmm. dem naa fa nekkul conséquence combat bi moo tax ma dem fa. d'accord parce eh, bu ñuy waxtaan dañuy waxtaan te yàlla tax. dëgg la parce que daaw naa bu yàgg avant combat bi taxaw pour dem. Mhm. yàlla def feebar bi ñëw. Mhm. combat bi taxaw si diggante bi. dëgg la feebar bi ñëw feebar bi moo gën a empêché dew ma bu ñu dem ba si biir feebar bi gën a wàññeeku wàññeeku. Mhm. fekk réservé naa sama billet ba pare mënatuma toog di yàq xaalisu billet bi. Mhm. ma ne xaaral a dem benn yoon rey kii bi xëy na yàlla baax na balaa ma fay def leneen. Mhm. combat bi dina am date. gis na si diggante bi yàlla def balaa samay li ma six mois yi jot. ñu ñu kale combat bi. yàlla def ñu ko mu tombé ak sama retour. ma ñibbi si maag maag promoteur nag couleur lañ sekk. maag prince. couleur lañ sekk. Mm-hmm. boo gisee moom dem ma dem États-Unis tey. Mm-hmm. yàlla ak moom moo tax may wax yàlla ak moom moo tax ma dem États-Unis parce que sama premier visa. Mm-hmm. moom moo ko déposé ma am. moo tax ma am moo tax ma am tey visa dix di dem di ñëw dem di ñëw man li ma yóbbu États-Unis mooy comme li gars di pratiquer ne MMA bi rek. bokkoon na li ma si gënoon yóbbu. Euh, ak dem xooliwaat. Ah. xooliwaat sama parce que ñun ay jeunes lañ. lu ba nga demee ci MMA bi da nga demoon inscrire bu bu ñu wax si max la nekkoon max. maa ngi ko nuyoo passage grand max maa ko nuyu bu baax baax baax di ko ziar bu baax. Mhm. pare bu ma ñëwee dem bi ma demee États-Unis mhm. mu xam ne maa ngi fa après moom si laa daggee bi jóge New York dem Miami. Mhm. bi ma demee Miami ma def fa une semaine. si biir une semaine ma fa demoon nag dew moom pour toog foofu exactement mais dama fa demoon pour defi test xool. xool li fa am. bi ma fa demee test nag affaire bi fa nekk bi ma fa fekk. fekk naa fa gis naa fa sama bopp ñoom tam xam nañu kii kat gis si la fa boobu mënuma fa toog li tax ma mënuma fa toog gérer fa nekk dama fa nekk ak sama papa peut-être sama ne xool boo demee ba xool boo fa demee une semaine nga ñëwaat continuer sa bi la si loolu ba léegi ñu ngi siy dox ni maag sama copain yi nekk foofu ñu ngi ni Omar Ndiaye ak ñoom Seydou jot nga ci am benn combat wala amaguma combat mais dañ si doon entraîner quoi di mhm. xool parce que kii affaire bi foog nga am benn club bu assuré. boo amee club bu assuré boo duggee si club bi rek boo boo rek. da ngay am am ay combat parce que MMA. da am am combat ndànk-ndànk di yéeg. nekkul da nga ñëw yéeg parce que sama poids fu mu toll. bu ma nee dem defi combat. directement si grand lay jox. Mhm. te grand combat bu la siy jox ñoo ñoo la ëpp expérience pour le mhm. moment. Mhm. mais saa foog ngay defagum ndànk-ndànk di entraîner di xool say faay. waaw ñu lay préparer ndànk-ndànk. loolu kon instant yi am nga coach boo xam ne ni moo lay entraîner MMA. am na ñoo xam ne ñoo ñuy xool foofu ñoo ñuy suivre ak suñu entraînement suñu lépp. mais saa ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla na yàlla eggal yéene yi parce que ak ñoom Chris ñoom Amasi. ñoom Paybu. d' accord instant am est ñu ngi démarché sa combat MMA wala. non instant démarché ak sama frère bi tam ñu ngi siy waxtaan maa Siteu ñu ngi siy waxtaan lu bari bari bari. Siteu mhm, ñu ngi siy waxtaan ah, lu bari parce que yàlla def na moom moo ma si jiitu. Mhm. ñu ngi siy waxtaan lu bari bari. d' accord fekk yàggatul dara. buñ si buñ si buñ si déggoo maag am combat Siteu a dañ si war a ñëpp ñu Sénégal ñu jàppale suñu biir d'accord bi suñu nekk itam ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm dinañ ci ñëw waaw dañu mhm. nga demee loolu nga gis oui boo gisee naa MMA moom waa am na xaalis mhm. am na xaalis trop sincèrement parlé mais ñun suñu culture fii la mhm. lamb lañ am suñu culture lamb lañ am c'est bu na dañ ko war a dañ ko war a fonk parce que bu ñu gisee bay dem def ay MMA tey làmboo tax. Mhm. mu ne ko bi waruñ ko rey ndax MMA bi. d'accord buñ ko reyee ndax MMA bi rek daa am leneen lu muy wàññi suñu dëkk. Mhm. bon na dañu war a gën jël ramb ji favoriser ko. te bu ñu yàlla mayee combat MMA ñu dem defi MMA bi. dëgg la mhm. gis nañ rek rek euh, semaine bële passé mu def benn combat moom ak Kirill Grishenko ñu mu jëlee fi KO. lan mooy erreuru Reug Reug pour yow ba mu am kaw boobu Reug Reug man sincèrement parler mun ma ko reprocher foofu dara ay erreur wala du erreur mhm. parce que xëy na lu waroon am na rek parce que mhm. man dama gis ne mhm. fii affaire bi fu ma xaw a rek mooy bu mu bëree le cinq le cinq avril passé si diggante bi si biir avril mu amaat si combat bëre dafa jege waaw dafa jege woo xëy na gars yi ñoo ko ñoo ko bëggoon pro gars yi ñoo ko bëggoon profité Mm. gars yi waa champion sud ñu koy def MMA. man loolu laa gis quoi. Mm. parce que MMA nekk na loo xam ne boo ko ko waaj di nga ko waaj ay deux mois un mois. nga mun a xam sa adversaire bu baax. mun ko mun ko pratiquer bu baax te waajooju mm-hmm. kooku dafa jàng rek rek. Mm-hmm. dafa jàng man li ma gis boog si vidéo dafa jàng rek mm-hmm. rek. mais rek nekkul ne waaj moo mun rek rek. wala soit rek daa yaafuus. Mhm. ñu dóor ko mu bañ ne du continuer noonu non non. Mhm. na fi ko waaj dóor foofu moo foofu te baaxul si moom. Mhm. moo moo moo xooli ko arrangé mu tëdd. d' accord waaw mais ñu ngi ko si jàmm defal si réussite. d' accord parce que ñun Sénégal neen ba génn Sénégal rek. drapeau réew mi nga téye. c' vrai ñu tous euh, yem toujours si sa voyage boobu Amérique malgré que ne du euh, combat bi moo la yóbbu woon. waaye ba nga demee également jëf nga fa jëfi combat préparé nga fa. nan nga doon préparé foofu ak ñaata séance nga doon def par eh, bi ma demee jëf naa fa jëfu combat. préparé naa. parce que avant koor gi di jot. dama doon entraîné par deux séances. suba si dama daan ñëw def salle def musculation ngoon gi maag maag benn course bu ne fa ñu dugg ñu ñu dugg salle de boxe. Eh, dugg salle de boxe bu ay nekkee ay samedi yooyu ay vendredi yooyu. ñu daw ñu daw suñu longue distance daw suñu gradin. waaw def suñu longue distance daw suñu grandé loolu ñu ko doon bi koor bi ñëwee itam benn séance lañ doon def parce que koor fii ak foofu du benn parce que heure yi ñoo wuute quoi mhm. benn séance ñaan bi dañ daan bàyyi ba ay cinq heures ñu dugg saal def fa li fay def génnaat bu daan dogal jot ñu ñibbi kër gi toog mhm. kon daal instant yi caat physiquement pare na pour jàkkaarloo mujj sincèrement pare parce que man nekkuma la wax nekkuma parce que dañuy wax mbër mbër mu ndaw du préparé day pare. day pare c'est vrai man moom ku ma xam te yàlla tax rek. Hmm. xam ne entraînement la ma xamee. Hmm. muy am combat ñàkk am combat li may entraîné. Hmm. li si des moom dañ ñëw yokk fii kii Sénégal. mooy si wàllu contact ak wàllu géej. d' accord d' accord nga def 6 euh, mois yàlla def nga revenir euh, dimanche bi passé. Mhm. maintenant revenir nga lan ngay accès sa préparation maintenant bi nga xam ne yaa ngi Sénégal lan ngay sa préparation lan nga ciy def. waaw sama préparation mooy li ma la wax rek. Mhm. gën a dugg sama équipe mhm. ak collectif bi. comme ni ñu ko daan defee si combat yi passé. nekk jiw bu baax gën a liggéey si suuf gi ak contact parce boo demee États-Unis foofu amul contact fi mu ëpp contact. Mhm. boo ñëwaatee li nga daan def États-Unis li nga fi li ëpp li ngay def yi moo ëpp ko li nga daan def foofu mm. musculation bu ñu defee foofu dañuy wàññi musculation bi ñoo continuer suñu contact mm. te suñu contact ak suñu gra ak suñu grandeur ak suñuy dëñ d' mm-hmm. ñu dugg ci dernier point bi moom mooy sa adversaire Modou Dia. Mm-hmm. def na benn vidéo. Mm-hmm. sànni la ci xeer ba doyal. est ce d' abord euh, seetaan nga vidéo boobu. non non seetaan naa ko <laughs> seetaan naa vidéo bi maa ngi ko nuyoo Pazam Modou <laughs> di ko ñaana yàlla yàlla dafa ko jàmm may ko wér. may ko wér may ma wér. ba nga déggee mu wax loo koy tontu. waaw bi ma ko déggee moo wax man li ma koy tontu lenn la rek. Mhm. maa ko teg mu teg ku ko dégg micro muy wax rek xam naa kay day gars ko wax ne mbër bi nga mbër bi nga tase ba bariwul wax ñëwal nga xëpp ko wax bu ko wax mu jeex mhm. mais yaakaar naa ne xam naa ki ko ki ko wax ne boo jëlee caat da koy daan ko da ko nax mhm, mooy si sëriñ mooy si entraîneur waaw parce que man moom man damaa teg de nekk may genre boo yooyu noo xam ne da ngay ñëw rek ñu ñu bëlëbe sa xel mi jàll sa kaw non man damaa tañ. Mm-hmm. te man sama te fu mu toll nii suñu waa écrit mm-hmm. daa am lu ñu yaakaar. te daa am na ñu bugg sama dëkk même chose. muy damaa dem muy jonwaar mm-hmm. dans tout partout dans les îles ñun dañoo yaakaar fu mu toll nii. dañoo yaakaar ñun muy man muy Sida muy Valdo. muy Kalmundoor. muy yeneen booy booy yu fa nekk di fël yëpp. waa Île du Saloum leen yaakaar te dañ leen toogloo teg leen wax leen lu leer. dañoo yoon yaa xam te ñu. donc yéen ñooñu du ngeen bëre. ñu nga Cité non non. Mhm. ñu laa suñu biir parce que ñu ñoo bokk Île di Saloum. d'accord ak ñoom Seeti jaan ñaar ñoom ñëpp. Mhm. waaw. d'accord kon euh, Modou Dia li mu wax ne caat dikk daanu la ci am fu mu ko dikk daanu xëy na waxu mbër la rek. loolu moom la conseil dikk daanu laa sam loolu moom la conseil mais man moom li ma conseil l'essentiel moom. Mhm. le jour ji bu abi sifflé. dinaa xam ne dikk daanu laa si am wala moom mooy dikk daanu. moom jàppoon ne daf la xeeb. non daf ma xeeb daf ma suuf si si Turo. Ah. Modou dafa te <laughs> man xëy na man sama tur moo ma jiitu si làmb sama tur moo ma jiitu mhm. parce que yaa caat bi damaa mhm. jiitu sama yaa tuddee ma caat mhm. caat boobu moo topp ni ba bi may bëri moo ma topp ni xam nga di ñaanal sama jaale moo jotam déggul naa ko si wax mu wax si bi si si vidéo bi am na benn maam bu gaañu maa ngi koy jaale yàlla na ko yàlla xare àjjana mais di ko xamal ne nag na xam ne am na combat mbër combat dégg nga am te bu laa nga xam ne am na combat ñu dugg ba si diggi géew bi hmm. lu leer laa tegal du ma la may dara boo ñëwee suba kañam nga fi fekk lu leer laa day tar caat day ñëw pour xeex wala déggu ma ne lépp laay def fu ma woo wuy ko si hmm. billaahi barke weeru koor gi fu ma woo ko si làmb ji combat bi nar na neex instant làmb ji fu mu toll nii man amatul dara lu ma siy bañ hmm. képp ku ma nar a yàqal sama li nga xam ne moom laay jëriñoo bu jëlee sa bu jëlee sama bëkkante sa dafay des Mm. képp ku nu képp ku ma ko nar a yàqal mm-hmm. di def si man loo xam ne daf may yàqal sama li nga xam ne moom laay jëriñoo mm-hmm. yooyu sa bopp laay yàqu lu mu toll nii bañaatuma si dara parce que mooy sama avenir mooy sama njëriñ si laay tëdd di si tëddal samay waajur mm-hmm. di si tëddal samay njaboot di tëddal sama jabar mystiquement pare nga mystiquement amul dara lu may bàyyi déggoo ma de amul dara dara dara dara dara lu may bàyyi sant yi pare nga mystiquement amul dara lu may bàyyi déggoo ma de amul dara lu may bàyyi ñaata nga investir si mystique fu mu man lu lu ma si am jël du ma si doyal Mm-hmm. lu ma si doyal lu ma si am jël. du ma si doyal. parce làmb yi fa toll foo xam ne. Mm-hmm. foog nga pare physiquement. Mm-hmm. pare mystiquement. waaw man amatul dara lu ma si bàyyi. amatul dara lu ma si bàyyi tu gisee boo gisee man amatul dara lu ma si bàyyi. daa am loo xam ne dañ ko dañ ko dañ koy dañ koy xeeb si làmb. mais toll si def ko. weesu si weesu ko bàyyi ko ay deful garaawul. boo ko weesoo da koy bàyyi. nga yenn si nga toog téye sa kurus di ñaan yàlla di jégal suñu borom mu baal la. d'accord carrière làmb dafa dafa gàtt. carrière làmb dafa gàtt mm-hmm. mais. teewul tam am na am na yu ñu ko booleel. Mm-hmm. voilà ci yan métier nga ko booleel yow. waaw parce que moom làmb. Mm-hmm. ñëpp xam nañu marché poisson. man si poisson laay liggéeyee. Mm-hmm. su ma amul combat fa laay nekk daan sama doole. Mm-hmm. ba yàlla dama voyage su ma demee voyage itam du ma toog ne Thiel. Mm-hmm. su ma demee voyage itam dina am samay business yu ndaw yu may nekk. ok le ban message ngay mujjal la envoyé sa adversaire Modou Dia. waaw sama adversaire mooy di ko ñaana jàmm rek. di ko ñaana jàmm di ko ñaanal wér. yàlla may ko gudd fa rek wér ak sutura. bala jour yi mu ñëw yàlla may man dama si kawam le reste moom. denk naa ko suñu borom suñu borom moo yor ndam moo yor lépp. Mhm. maa ko ñaan mu yàlla moo may man ndam la 11 juillet si kattanam ak mbaaxam. Mhm. Mhm. loolu moo doon émission bi Thiat euh, lan loon tey mu jógee États-Unis dimanche bi passé ngeen gis ko mu ne waxtaan ak ñun ci Boy Bambara waxtaan ak ñun ci voyage bi mu def Amérique waxtaan na ak ñun également ci adversaire bi di Modja ñoom ñaar ñu war a laale le 11 juillet euh, yàggatul le 11 juillet kon euh, sa dernier mot la. waaw sama daj ñëw mooy moo mooy di gën a gërëmaat sama am si jàmm yi ma fekkoon États-Unis rek. Mhm. mooy booy ma li ma sànq rek. Mhm. di nuyuwaat sama papa moo fa nekkaloon. sama papa Mamadi Sarr di nuy jabaram Tane Biaye maa ngi koy ñaanal bu baax waa di ñaanal sama papa boobu ñoom ñaar yàlla defal leen jàmm defal leen sutura defa leen wér. Mhm. di ñaanal sama raq yi ma fa bàyyi tam ñoom Pa ñoom Ousseynou ñoom maa ami ñoom Tafa. maa ngi ñaanal ñëpp bu ma jógee may dem ba Brooklyn tam di sant sama boy yi nga xam ne. Mhm. saa yu ma ñëwee ñoo may taxaw si lépp. Mhm. ba bugguma manqué dara. Mhm. waaw di si jiital nio bi seen yaay. ku mel ni tati jay na ba maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax maa koy sant ko gërëm sama combat bi moom laa ko parrainé moom moo doomam yi. moom moom ak xabi. beneen rakk bu jigéen bi ñoom laa ko parrainé. ñoom laa ko parrainé di sant ñoom Jibi Seydou. kiris Am Modou Fall ñoom Paye ñoom jazz. xam nga booy conseil ko ñoom ñoom ma paate bàyyi ma kenn. Mhm. di dem ba tàgget. Mhm. tàgget international di sant sama grand bu baax Bruce Lee maa koy sant Bruce Lee mbër maa koy sant bu baax. ah sant ngeen foofu. ak mhm. Antoine Bakhoum Antoine Bakhoum ancien champion. oui maa koy sant bu baax a baax di sant sama grand Moussa mu ngi foofu tàgget. ak ñoom Père Mamadou Sall. ñoom Mamour ñoom Matar. xam nga Sénégal yi fa nekkee maa di sant leen di gën a oma seen fay parce que ma demee gis naa ñu ma taxawoo ñoom Dunga ñoom Mucc sama xarit Michel kooku def maa sonal yàlla tax maa sonal baax la tam di sant ñoom va di sant personnel target yëpp bàyyi ñu kenn mhm. képp ku nekk target di fa yëngatoo di fa liggéey rek man caat maa lay gërëm parce que gis naa bi may ñëw dañ ma taxawoo mhm. waaw di gën a waar sama mbokku séeréer nag noo foole noye wono ñaknoye meeɗa mo sikten toro tax par ce que nonen yakaru yakaro leng andun hiren ka tuna nofna fayako bo a ñojoor yo ngoya fop i ndok ñom ɓaato ngoya ñom ɓaato fop i ndok meke siin ngoya sisin i fop i loog fop i mbaasi o leng kep ndefo loog rek kep ndefo seereer to leya me e rek caate xoyam no combat wene o sik teen ga damtin bo de jeg toog ndam toog modja modja njaay mhm, parce que njome tolo tama hanna hanne ino sere imba te nyakke njene to ke njene imba re mbasa ci mbasa nga ci nyaka nuru ko nuru ko ya fusu ya fusu da nuni an nadara nga don sikta in memi nyaaje nge tok dun sa imba an nga fop andu da nyaaje nge tok nu nyaaji tok parce que nyaaji da nga tok nek imba mo nun tous wa im gidma nun gidma fo jonwar fop imba so le imam ke chef de quartier ke grand ke devant alkali di ziyaare ñëpp nuyu sama jabatam di ko ñaanal mhm. yal na ko yàlla defal jàmm dafa mhm. ko sutura mu ñal na ma déggal na ma defal na ma mu ñal na ma daal di nuyu sama maam tam mhm. maa ngi ko nuyu ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu Omar Ndiaye sa États-Unis Omar maa bu baax baa yow tamit yow sama grand bu baax nga di ziyaare ñëpp waaw bàyyi ma kenn di ziyaare ñoom El Hadj Badji ak sama tat mama Adama frère Bourkiline allez loolu moo doon euh, waxtaan wi ak euh, Thiat ñu koy remercier bu baax a baax a baax a baax ci disponibilité bi à chaque fois bu ñu ko woowee day wuy téléphone wax ak ñun. mais am na lu ma bëggoon sànni benn message bu ma bëggoon lancer tam. Uh-huh, uh-huh. si cadre lamb la quoi. message mooy damaa bëgg ñu teg ko ba ñëpp di suuf sax parce que ñun ay jeunesse lañu. ñoo mën a defal lamb ñu noo ko mën a yàq. parce que mm-hmm. lamb demoon na ba suux. oui ba tey ji yàlla yëkkatiwaat ko mu ñëwaat. Mm-hmm. ñu ngi ñu dama passage Père Gasson ñu ngi koy sant. Mhm. gis nañu effort yu mu siy def. Mhm. waaw di sant promoteur yëpp. Mhm. di sant moo gën gis nañ muy def tamit. war na la tëggal ndax Amérique nga jógee. yee non dina ma tëggal <laughs> loolu ñu ngi siy wax moo gën dina ma tëggal Père Gasson sax dina ma tëggal. ok moo gën a Père Gasson dañu ma tëggal. ok xam nga di wax comme sama supporter. supporter bu mbëree mbër ak mbër ñëpp a si yem. mu supporter bu Balla Gaye. Modou Lo Bombardier Eumeu Sène ngir yàlla sa mbër bu daanee bu daanoo yëpp. Mhm. jarul yàq ay sièges yi dem ay sièges. Mhm. parce que lamb ji si la ñuy tedd. Mhm. yéen itam am na ñoo xam ne si ñuy tedd. c'est vrai waaw may may message bu la amul may lancer. parce que combat ñaan gars ñu gën a def fair play parce que mhm. fair mooy lépp daal. Mhm. Ah, di nuyu ñëpp. jaajëf message bi jàll na te message bu am solo la yóbbu sa euh, mbër taxut euh, bu daanoo rek lu la neex def booy dem euh, esat war nga xam ne victoire nga fa mën a jëlee défaite ak match nul mais bu ci mën a am rek war nga ko mën a dund ak fair play yóbbuwaat sa mbër ci këram. Euh, noonu si noonu leen di remercier di ci teewlu bi di leen jaajëfal di leen jox di daje ba beneen yoon incha allah jër ngeen jëf.